ko mu wàcc ci Cheikh Mouhamadou Bassir mi nga xam ne mooy porte parole xalif bi di jëwriñu màggal Tuubaa ñëw ci Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaynde Fatma mi nga xam ne moo yor communication ak culture délégation bi jógee foofu nag Modou Mbacké si moo ko jiite ànd ko sëñ Xaalis Jaxate ak sëñ Fallou Gala Sylla ak sëñ Falilou si bindkat ak sëñ Jili Ñang ak mboolem presse bi ñuy ñëw sëñ bi waxoon ñu ne bu ñëwee fii nañ ko nuyul xalifa sëriñ Afe Mbacke muy Cheikh Saalih yàlla ko fi yàlla bàyyi te kàttanal ko te dooleel ko dégg nañ léegi déclaration bi mu def bi ñu agsee ci moom wax na ne sëñ Afe lépp lu mu am sëñ Touba moo ko ko jox loolu tekki sàkk ne ko waaye sëñ Afe it ba loolu amee xamul kenn ku muy Sëriñ Tuubaa lu mu xam Sëriñ Tuubaa moo ko xamal yemul ca ñoo bokk wenn way jur topp ko topp ko wetam wax na it Sëriñ Tuubaa ci boppam daana jékki ba guddi mu ànd ak ñenn ñoo xam ne wóolu na leen seen diggante ak seen borom ñu ñëw fekk sëriñ Afe fi mu nekk fekk ko muy liggéey liggéey ba ko wax te mooy jaamu yàlla sëñ Tuubaa daana ko def loolu nag man musuma dégg ci lu mel noonu fukk sëñ Tuubaa def gë yëgoon naa nag ne sëñ bi daana tukki wala muy def rex la boobu di jaar ci ay barab waaye benn dëkk nga bokk ko ni muy déplacé wu di la fekk si loolu moom tey laa ko mos a waxuma nag ne amul waaye moom tey laa ko mos a dégg sa yaaf yi noonu ko sëñ Tuubaa daan defee moom itam do boppam daana ko defee noonu toog ba mu yàgg mu ànd ak ay kàngamam dem fekki Sëriñ Tuubaa fa mu nekk ñu déyante la ñu war a ñu bisiwaat li ñu wax euh, taarixu murit te mooy histoire lu sa alliwa gàtt-gàtt xamoon nga diggante sañu affaire ak alquran xamoon nga diggante sañu affaire ak lislaam waaye xamoon nga diggante sañu affaire ak Sëriñ Tuubaa su ma ko tënkee benn baat rek la sëñ Modou Mbacke Abdoul Wadoud ak ñi nga bokkal nekk fi yëpp sëñ Mountakha mi ngi leen di nuyu yooyu bi ñu daane ko Cheikh Bassirou Abdou Khadre ak sëñ Abdoulaye Mbacke Gaye defal na karawaan bii nag sëñ bi ci boppam moo ko sosoon muy sëñ Sidi Mokhtar Mbacke kenn ku nekk xamoon na sëñ Sidi Mokhtar yéeneem ci lislaam jullit yépp nekk benn bopp sëñ Fallou Galassi la mi may wax léegi ne sëriñ bi da koo tudde woon nañ teqale giri yi mooy giri yi ñu teqale mooy bëgg mu tàkkaat rek defe naa noonu la bi ñuy def déclaration màggal gi ci nga bokk yow ci comité bi nga bokk sëñ Bass Abdou Khadre nee na daana toog bu guddi mu wéet ak moom laaj ko karawante ay jéegoom bi mu fi jógee sëñ Muntaxa noonu rek la ko rek la tere bi ñuy ubbi jumaa màggal gi sëñ Bass dafa wax ne moo wax déclaration boobu ñëpp ko dégg wala ñu bari dégg nañ ko seen départ na ngeen ko njëkkee kër sëñ Baara muy doomi Cheikhul Khadim su ngeen fa jógee jaar déndé yi kër sëñ Mandoumbe ku ne xam ne leen def ci yoon yi ñu ñëw kër sëñ njaareem kër sëñ aafe di rakk Seexul Xadim waaye di taalibe karawaan bi li ko tax a jóg mooy defaree rek ak bokk mooy yaatal mbirum sëñ Tuubaa fépp foo xam ne dem nañ fa fekk fa jàmm su xol gën a sedd buñ ko fa fekk toon itam daañ fexe ba jàmm am loolu la ñu sëñ bi digaloon waaye fépp fi fi mas a jaar jàmm rek lañ fay fekk kon loolu mat naa sant yàlla bu baax karawaan bi it ajuwut ci rek murit jullit la sëñ Sidi Moxtaar waxoon islam ila yawmi diin bokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk yi fi daje yëpp ci pàkk bu tedd bii di al boqaatul mubarak di kër Sëriñ Tuubaa ñu toog ci benn ëtt ci kër Serigne Touba muy kër maam ci ëttu maam ci Anta Mbacke te lii sabab jotaay bi ni ko suñu mbokk suñu Modou Mbacke si waxee ci moom la ñuy ak can ak ngërëm mu jóge ci ki nga xam ni mooy xalifa Serigne Afia Mbacke Serigne Saliou Mbacke yàlla fi yàlla yàggal te wéral ko te may ko li mu bëgg taxawoo kër waajuram bi suñu borom may ko kattan ci ak baatin ba mu am ci ndam lu réeréer ak Cheikh Xadim di sant bu baax sëñ Muntaxa Mbakke alxalifa dana am li nga xam ne moo wëyal liggéey bu sell bii nga xam ne dafa fekk ay magam la ko tàmbalee Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ñëw ci Serigne Sidi Mokhtar yàlla yàlla yokk seeni leer ñu sosoon liggéey bu bii tegoon ko ci loxo Serigne Modou Mbacké si mii ak bokk yu tedd yii mu ko àndal te ñu tudd leen sànq ñu man ci lim Serigne Xaari Jaxate Serigne Fallou Gala Sylla Serigne Fallou Si Serigne Jili Ñang Serigne Moustapha mbay ak bokk journaliste yi nga xam ne yëpp itam nag saa bu jóge ñu jóg muy liggéey bu réy boo xam ne màggal gu mag bi muy muy ndigal Cheikhul Khadim dafay bis boo xam ne Serigne bi dafa wax ne ni mu ko daan waxee bernde lay doon bernde nag dafay am bernde busu busu yi ak ndaw kundaay waaye am bernde boo xam ne itam nag moom la ruur soxla mooy xam-xam màggal ga nag day xat ba loolu du ci xat ñu ne kon balay màggal gi ñëw nañ tàmbalee màggal bu màggal gi tàmbalee rek weeru màggal bu tàmbalee nañu fekki nit ñi ci seeni kër di leen tàmbalee dox seen i day màggal ci wàllu xam-xam ko jëlee Cheikh Khadim ñuy tànn nga xam ne ñoom lañ yàlla dogaloon ñu àndoon Cheikhul Khadim di dem ci ñoom di saafonte ak njaboot bi di waxtaane kilifa booba tey ñu ñëw kër suñu maam suñu affaire Mbacke ni ko suñu affaire Moussa waxee sànq ci suñu affaire bu ñu bëggee wax ci suñu affaire ginnaaw ci këram ngeen ñëw te ni mu ko waxoon xaarijul mawdon la ñuy bañ kon li ñuy wax lépp da nga koy ci moom ginnaaw nag li ma doon wax lépp daanaka bi sëñ Modou Mbacke si ubbee ak ni mu ubbee daanaka lépp ma doon na waaye suñu affaire yi ñëw moom it gën a yaatal li sëñ Modou Mbacke si doon wax waaye ñoom ñëpp ñu mel ne dañ doon nafaraat li kilifa di waxoon muy sëriñ Saliou Mbacke ci woyefam ci mbaaxam tax mu dox nañu tànk jóge këram kër boppam gële ñëwaat ci kër boppam gii dalal leen wax ak ñoom door a dellu kon loolu rek daanaka doyal na waaye du ñàkk rek ñu ñu yokkaat tuuti rek. ginnaaw bi ñu santee ni ko Serigne Fallou Gala si la waxee sant délégation bi ci la bokk xam nañ koy bu baax a baax xam nañ lu ko tax a jóg bu baax a baax mooy lan mooy ndigalu Serigne Mountakha jëm si fii ci Kër yi waaye mu jaare ko nag ci jëwriñam jë muy Serigne Bassirou Mbacké mu Cheikh Abdoul Khadir mu taxaw ci taxawaay bu rafet ba sos ci li ñuy wax comité d'organisation Magal Touba comité boobee liggéeyam moo jur lii ak yeneen ak yeneen ak yeneen biir comité bi nag Serigne Ousmane Mbacke mi nga xam ne moom la yàlla dogal muy coordonnateur mbooloo nga xam ne li ko li comité bi def yëpp foofu lañ koy tënke waaye ginnaawam nag comme comité bi dafa am ay commission yu bari lii ñuy def nii moom ñu ngi bàyyi ko ci liggéeyu commission communication et culture communication et culture nag Serigne Abdou monsieur Cheikh Gaïndé Fatma moo nekk président kon liggéey bii man ci biir liggéey bi laa bokk ndax ci biir commission boobu laa bokk suñu suñu commission boobu la kon kon xam naa ci lu baax a baax a baax xam naa it lu mu ak lu muy jariñ léegi nag sëriñ Afé mooy kan man bu ma doon wax rek eh, ni ko sëriñ Afé waxee rakki sëriñ Touba la ñoo bokk Mamour ànd sëriñ waaye itam buñ ko xoolee ci wetu maam Anta Ndiaye Mbacke wet googu itam moom maam Cheikh Anta Mbacke na ko see Serigne Moussa Ka di waaye wax ne jaam zaahir la jaam baatin mooy dañoo bokk ak seen bi ci wetu ndey bokk ak moom ci wetu baay waaye loolu lépp la bi mu andee li mu andi mu nekk seen kilifa ca teel lañ ko teel a jox seen bopp

ba nit demee ba tax lu tax moom la nekkal lu jiitu muy dal alquran jàngal na ko moom sëñ sëñ Tuubaa jàngal na sëñ aafe yi Mbàkke waaye Maamor Anta Sali ci boppam jàngal na sëñ aafe yi téere boo xam ne sëñ Tuubaa bokk taalif kon yàgg na ci tegg di ko sëñ aafe waxe fu sëñ Tuubaa teg tànkam ci tukki bi furul Gabon ñoo ko ànd gànnaar sëñ bi dafa dem tey rek ci bés set si daal fekk ko ñoo ko bokk nag at yi diir dañ fa nekk yëpp juróomi at yëpp juróomi at yëpp kasaalika cee noonu lañ ko nekk ba ci fukki at ak juróom njaareem bi yëpp mu bokk ak moom nekk ci directeur bi yii li mu doon di wax ne leetar mos a dox seen diggante ah kay mos a mos a mën a dox koo xam ne eh, naka jekk moo nekkoon naayibam xam nga sa naayib moom waxtu bi ni mu sewee boo koy soo gis ko kon leetar du dox foofu kàddu kàddu lay doon eh, ni mu ko waxee itam ci kër yi gii kër sëñ Tuubaa gii fi la sëñ sëñ Abdou Mbacké dëkkoon ginnaaw bi lépp nag dafay firndeel rek baatut naay bi waxoon nga xam fu mu taxawee rek mi ngi ci wetam kooku mosu tàggu moom benn yoon moo ko jàngal moo ko yar moo ko tarbiyee liberté lépp moo ko def ndigal li ñu ko joxoon itam nag ba mu ko koy jox moo xam la tax mu jox ko ko te mooy digal lu lu rëy ci Serigne Touba ndax ku ne xam na ne diggante ak Serigne Touba moom dara lu ko mos nag kam tànn ba wóolu ko ko daal fas rek fas bu demee ci course ba noonu la mel ci diggante ak boromam. noonu la mel ci digganteem ak l'islam te mooy lu baax rek kon comme ne yow laa teg fii ku ne nag ak soog ko teg ku ne nag yow comme la teg it fees nga place waaye yàlla dogal daal bii moom ñuy waxtaan suñu affaire boobu la ko suñu tubaab tegoon mooy ak imaama lépp loo xam ne jumanu ci wàllu diine luñ ci war a lijjanti te tànkam diis suñu affaire ba yebal daana nekk ci këram bii moom Cheikhul Khadim kilifa gu mag. wuy ji borom mu war koo taxawu suñu affaire wax nañ ko andi taxawu ko ñu doon ko yóbbu Tuuba bari na ci kilifa yu mag yi lool lool lool lool sax mën naa wax koo xam ne ci kanamu sëñ bi nga fi bàyyi ko moo la taxawu jot moom sëriñ bi jotam bari wutoon ci ni ko suñu affaire yi gan ñi daan ñëw ñu ci daan yem daawuñu àgg ci moom ndax jotam nag. Eh, kóorute moo ko jur nit ki nag bala ko wóolu da nga koy xam te la nga ko wóolu it da xam loolu lu moo tax foofu daal la la la la sëñ aafee féete woon Cheikhul Khadim ci biir këru boppam la nekkoon wut sa xëy ci loo xam ne moo ko ne jógal fu mu yàlla moo ko yàlla fu mu fanaan moo ko fanaanal ndigal ndigal li ko joxoon itam mooy mooy mooy nekk imam ci biir kër gii ci jàkka jàkkay boppam ji moom Sëriñ Tuubaa jàkkay boppam ji Serigne Affe moo fi nekkoon imam ginnaaw bi lañ tabax jumaay njaareem ji mu wéyul imam boobu ba niñ ko wooyee wax ko ne ko magam ja magam ju tedd ja maam Cheikh Anta dafa dafa xaw a jagani ba mu demee di ko seeti fekk ko ak nam ko fekkee mu xam ne kii eh, fagu na mu mu mu wax kàddu yi mu bëgg wax daal de moom eh, day sama sama sama sëriñ ba day la ma waxoon xam naa ne am na te kii wóor na ma ne du dëgg ndax moom waxoon ne ma bu doon saasax day da ko teeroo Seex Anta te àjjana te mu ngi nii te xam naa ne moom euh, moom jël na yoon bon sëñ Mor Fatou Touré sëñ ab moom moom Seex Anta ngi taxaw ne ko waaw sama ne yaay ginnaaw yow yaa ngi nii ànd ak sa sago taxaw te moom mii xam nga ne jóg na ba noppi te yaa koy jiitu kon tey ngaa wax tey ngaa baxale lay wax wax dara. Mhm, mhm. mu daal ne ah man de samay wax moom mën na cee bañ a naa bañ gudd. ndax ba ma ba ma ba xàmmee sama loxo ndeyjoor ak sama càmmoñ ba fii ma taxaw di wax daal musuma fàttali ko fu ma tooñe sama borom wala foo mos tooñe sama morom jaamu yàlla ñaari baat yooyu la wax tiim ma Cheikh Anta ba ci yàgg mu jóg dem ca néegu boppam fa muy fa muy nekk bu ñëwee Daaru Salaam ñaari néeg loolu bii sëñ ci nekk bii moom néeg bi mu nekkoon fa la julli tisbaar takkusaan ci diggante boobu bi muy julli taay ji mujj ca fa la jaaree ñibbi àddina ci ni ko Seexul Xadim waxe bi ñu ko yóbboo Touba bi ñuy dellu si waat dañoo dox bi ñuy dellu si Daaru ba bay seen néeg yi ci la maam Cheikh Anta wàcc te ñoom ñaar ñoo bokk ñaari waajur nii la seen diggante demee matul 24 heures te eh, moom na ni ma ko waxee comme imaam la woon daawul génn daawul dem fenn fii rek la toogoon waaye te du tëm nag mbooleem bokk bi ñi mu ko war a seqal ñëpp rafetoon na ak ak ak ñoom ñëpp nag eh, bari na itam ay barab yoo xam ne ay barab yu boppam loolu mooy xaafee yi ngeen jëm fekk fa sëriñ Moustapha Cheikh Abdoul Akram ci ay barabam la bokkoon am na fu ñuy wax njóokin fii ci ay barabam la bokkoon la bokkoon Tuubaa diine ay barabam la bokkoon ak yeneen ak yeneen ginnaaw bi itam moom mi fi euh, mën nañu wax ne tënk euh, ay atam mi ngi toll ci euh, juróom-ñaar fukki at yu manqué benn moom rek la am dundam yëpp juróom-ñaar fukki at la benn ak li mu liggéey lépp ci diir boobu la ko def loolu ñu def kër gi maa ngi maam Cheikh war na war na ko mag ay juróom wala juróom benn at te ñoo demandoo ñoom ñaar eh, kon daal sëñ Modou ci ci ci bu fekkee dañuy dañ doon bëgg wax ci sëriñ Afia te di ko tënk mooy jëm ji nga xam ne daal li ñu wax ne sëñ Tuubaa loolu la wax ne bu nee diw du wax ku ko jur ku ko yar lay wax bu ñu xamee ku ko yar rek xam ko mu waaye bu ñu bëggee wax kan mooy sëñ Afia ñu ne mooy rakki sëñ Touba ji nga xam ne ñoo bokk ci wàllu waajur bu góor bokk ci wàllu waajur bu jigéen mu si génn loxoom ci bi muy ndaw ba bi muy mag kon sëñ Modou ñu bantuwaat cant rek ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di ñaan yàlla itam at yi nga xam ne yor ngeen ko lu am maanaam lii ngeen yor te mooy di ko waajale màggal ku ndam lu ngeen ci mas a mm. yàlla ci bii raw